يا رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك اي كده bu ñëwee fi kay dina ma rey mbaa ma rey ko kii dina xam ne man bu ma moromam. <laughs> Eh, jugal sax soo tëddee day yóbbu jugal mu fecc ma fecc waar seet. Oh, fecc mu nag feccal ma loolu rek tamit na mu kontaan. Hmm. xanaa bëgg xam lay ko. mu naan man ma ma ko de mboona nag mboona. Eh, waaw waaw ay. Eh. waaw waaw mboona. ay ay. waaw paa dafa si ne dafa dafa dafa jëfoon na si waxtaan ah ma fay ko ah kontaan naa de tëddal fii. te moom mi ay na ma. yaa leen man doo seen morom fecc am tàngoor déggoo ma de man waruma zëni paay laay war. ñooy kene yi yàgg yi. kene yi nga ne nii. téere dee di pa ay papa papa ni mu garaawee papa est ce que aw xamoon naa baana قيامك باركها المولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى kan jur góor moom moo jur góor <laughs> kii góor bi mu jur rëy na ah ma dem sax indi kii teraanga yi fii ñëw lekk damaa xaw xiif hmm? waaw tey dama kaar mel sax. ah ça fait l'occasion xam indiwaale ñu noos. doo ko wax kenn. du ma ko wax kenn yaay sama amoo rek. ah doo ko wax kenn. dama oroon kër ga nag de di mi yàgg. Ah, wóorul lan sa wóorul na nga ko yemale seen kër fii amul wóor de. du ma la boole sama amoo rek. ma bañ a góor eh. Ndiaye da nga doon naan jus. ah yàlla tamit. neen ah. eh neen ah. Ndiaye da ngaa dof. di ma ni naan jus ma du ma dama ooroon tey. bi dama ooroon tey. ay maam man waar. ak koor gi kenn du poñe sa jëkkër sa. رمضان محلاه ايامك باركها المولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلاه ايامك بارك